honorable député Cheikh Abdou Mbacké Baradoli, Dolly vice-président commission de loi assemblée nationale nekk coordinateur département Boko gis-gis secrétaire national bokk gis-gis waaw euh, Macky Sall euh, bin ko fal falaté mu nek deuxième mandat baba légui mën at at bi nak buma ma koy jàngal mooy at bu naqar la koy wax at boo xamante ni amul benn résultat at boo xamante ni mboolem lu mu digoon askan wi defu ko at boo xamante ni ci la askan wi gën a am ay jafe-jafe ndax yokkut yi nga xamante ni mooy am yëpp ci at bu beew bu leen ko am kon jàpp naa ni fi mu wax ni mooy fa mu réew mi ci at bu njëkk bii mu des ñeenti at foofu moom gëm naa ni du fa mën a àggal réew mi ndax danaan cin bu naree neex bu baxee xeeñ ndax président Macky Sall lim njëkk def mooy dafa violer constitution bi ndax dafa constitution dafa wax nii bu fekkee dañ la fal nga nekk njiitu réew boo defee prestation de serment ba pare da def déclaration de patrimoine foofu defugu ko ba léegi fi may wax yow te am na at. Macky Sall bi nga xamante ni bi muy campagne waxul woon ni dana génn poste premier ministre dafa nekk ba gagné réew mi dindi poste premier ministre Macky Sall bi muy campagne waxoon na nii courant am nañ ko daan mën a jaay Sénégal euh, bitim réew. Même quand on vient dans le cercle Kurang, tout ce qu'on a à faire est de faire des achats. Mais quels salles? Bien sûr, les Ça coûte quoi? Pour les sacs 13 600. On m'a 15 000 francs le midi Mais quels Ça coûte quoi? Importer des 18 000 francs. Ça fait 23 000 francs. Mais quels salles? Bien sûr, les eaux 13 600. Ça fait 22 000 francs. Mais quels salles? Bien si je 53 000, je suis 64 000 francs CFA. Macky Sall, quand je suis venu, je suis 695 et je suis 695. Essence, je suis 695 et je suis 795. Macky Sall, quand je suis sac importé 25 kg, je suis 6500 et je suis 9 000 francs. je suis en le kilomètre

dat bu mu joxe ne daan ko ubbi kenn du ko ubbi ndax ku ne xam na ni bi muy dem campagne avant muy dem campagne demoon def immigration terre bi joxoon mois décembre ni premier train bi njëkk a du di yóbbu ay nit dañ ko des mois décembre ba fi may wax a yow terre bi ubbi koogul joxe woon na tamit ay engagement ni woon dinaa fexe ba nga xamante ni Mauritanie nappkat yi nga xamante ni mooy am seen diggante maanaam ak euh, waa Saint-Louis dinaa ko sama bopp yoral ko sama bopp dossier maa ko seeral sama bopp ku ne xam nañ loolu defu ko mbay mi tamit ku ne xam na ni li nga xam ne moom doon wax askan wi ak sénégalais yi nga xamante ni ñoo ko fal mu ne bu ma ko jëlee dinaa fexe as euh, mbay mbay mi baax dinaa fexe baykat yi am jiwu dinaa fexe ñu jaay ko si prix bu baax fi may wax a yow loolu amul ndax baykat yi nga xam ne dañ doon yaakaar ko su néew waaye doon jaay seen gerte ba fi may wax a yow sinwaay sax din nañ ko ci sempre note boo xam ne ministre agriculture def na ko ba nga xamante ni àll bi gerte gaa nga fa yàqu ndax li nga xam moom la ko état Sénégal bëgg a jëndee te baykat yi nanguwuñ ko jaay loolu moo tax ka affaire bi bloqué kon jàpp naa ni bilan la boo xamante ni tey boo ko doon càmbar di ko jaax nga wax askan wi laaj leen lan moo xamante ni mooy déception totale la ñu am ci li nga xamante ni mooy nguuru Macky sàll gi ci at bu njëkk bi waaw ñu ko si pexe mooy askan wi nga xamante ñoo fal Macky Sall te mu sàcc li nga xamante ne mooy souffrance anniversaire bu nit ñi sàcc li nga xamante ne mooy seen xel ak seen xalaat ci loo xamante ni wax na ko tudd dëgg yàq constitution bi indi ay parrainage ñi waroon nekk ay candidat yëpp mu éliminer leen ba nekkuñu candidat loolu lépp mu boole ko ba am 58 pour cent li nga xamanteni moy mooy am pour que yaakaar naa ne réew mën a jaara yoon mooy ñu jéem xol nu mu gëna gaawé nu ñu ko fi jëlé ni ñu ko fi jëlé nak benn moy ci démocratie la wax moy fexé ba élection yi njëkk a ñëw mooy élection locale ñu xagn ko maire yi élection député yi 2022 ñu jox assemblée nationale opposition bi 2024 mom du bok élection mais ku fi samp ñu fexé ko daané pour indiwaat Sénégal sénégal Sénégalu dembu Sénégal yu yërmaane Sénégal lu jéggalante Sénégal gi nga xamante nii lu baax rek moo fi war a am tàppe xol yëpp pour que réew mi mën a tege si raay bi nga xamante ne mooy la meilleur raay pour Sénégal mën a jëm kanam ndax raay bii mu tege raay na bato bi bënn na te si suux la jëm te bu suuxee ñëpp lay suuxal kon il faut que ñu stoppé ko xam ni fii mu jëme réew mi baaxul mu deltuwaat ginnaaw ci lépp loo xamante nii ay jafe-jafe la ak ay maanaam ay manque manque yoo xamante ni waxoon na ko Sénégal te mënu ko mu taxawaat jéggalu Sénégalais yi ni leen jéggal leen ma ba leen ma ak mënatuma démission naa jégbal naa leen réew mi maa ngi dem sama yoon loolu lañ koy séentu te loolu la war a def ndax dafa jot fi mu toll